yow mi may deglu ma ngi lay denk nga def sa kër bi da nga nek di dund ay jafé jafé du jëm ci walu am-am ni tol si jamono jo xam ko amul mën naa wax lu bari bari bari dana metti sa côté té nit ñi dimbalenté wuñ té lu bari bari bari bari xaalis mo koy fajj feebar yi ginnaaw yàlla amul xaalis pour nga faju dana xaw metti wala nga nek ci ay difficulté bëgg sé génn nga bëgg tabax kër wala bëgg jënd oto wala bëgg taxawal dara kon am am nak yalla rek mokay may ñu ngi ñaan ci yalla ñu ko yalla yombalal may ñu ko ñu ñep te buñ ko maye ñu man ko jëriño jëriñ ci suñu jabot jëriñ ci suñu bokk ak kep kuñ ci yalla bolel kon ma lay diggal yow may deglu ba sétane vidéo bi inshallah rabbi ko ma kan de waaye yow moom ñàkk moom daal la ko te di nga sant yalla bu baax ngeen partager vidéo pour dimbalé ñeneen ñi nga xamné ñu ngi bëgg am yenn secret yi te amuñ occasion pour man ko def yalla dañ la defal teranga gu yaato yaato inshallah ñi bëgg a nak moo xam ngeen bëgg a seetlu seen mbir si wàllu diggante wala seen mbiru bopp wala wàllu biddiw dégg nga wala nga bëgg a xam say mbir mu ngi ñu yónnee message wala nga woo ñu 76 605 63 19 am na whatsapp tam donc tey nag sa secret am am alal laa leen di jox tey yàlla dina la ko yombalal ginnaaw bu utee ay taxsin ay musluwaay ay nga sa bopp secret bi doo ko jëfandikoo mukk mukk mukk di ñàkk doo ko jëfandikoo mukk di am ay jafe wala alazim ni ma leen ko waxee bu ngeen ko defee incha allahu rabi yàlla leen leen dimbale yomb na te jafewut da ngay fexe euh, bu dee mën nga bind boo mënte bind tam utul ku la mën a bindal ñu ne oowuñ oh, kenn pour mu ñëw ñu defal ko ko waaye ku bëgg ñu liggéeyal ko ko itam bindal la ko mu ne la ko bindal ku am keneen ku la ko bindal itam mën ngaa dem ñu bind la ko wala nga bind ko sa bopp ñun suñu yéene mooy jox leen secret bi kon secret bi da ngay bind yaa walliwu yaa latiifu yaa walliwu yaa latiifu comme ni nga ko gisee nii sangat bi xaw a bëri la nag yaa waliw yaa latifu ngay bind 2275 fois nga bind alhamdulillahi lazi sadaqana wa addahu wa awrasana ard boobu 175 nga koy bind si li mu fidda muy xaalis kon yaa waliw yaa latif bi da nga koy bind 2275 nga bind alhamdulillahi lazi sadaqana wa addahu wa awrasana ard 175 nga xoj ko si siwo su bind yi effacé woo mun ngaa génne kayit yi bu ko defee saafara soos noonu da nga siy raayu suba ngoon suba ak ngoon nga si raayu mun naa yàgg ak yow chaque ajjuma nag lii obligatoire la chaque ajjuma wala guddi ajjuma alxemes soit nga def ko alxemes guddi wala ajjuma si bërëb bu set nga téye sa kurus dégg nga avant juma wala après juma yaay xool ngay wirda yaa walliw yaa latifu yaa walliw yaa latifu 2275 nga wirda alhamdulilahi lazi sadaxana wa adduhu wa awrasana arda 175 fois loolu chaque semaine bi benn yoon nga koy def muy àjjuma wala guddi àjjuma kon mbir mu màgg màgg màgg la lii boo ko defee ci diir bu gàtt ay weer laa la wax nga saxoo ko lii di ko def du mat at te doo gisee mbir soppeeku ginnaaw boo utee ay musliwaay sa bopp di jëfandikoo secret bii ak foo mënti ne ak liggéey boo mënti liggéey yàlla dañ si defal xéwal dañ si defal teraanga dañ si defal tawféex ekiti na ko jox len ko ci xol bu sedd yeen tam jël len ko ngeen partager ko mu meuna yaatu ku ci nek man ko jot ñun tam ñu mën ci am ay tuyaaba buñ sañoon ñepp am buñ sañoon ñëpp ne si jàmm buñ ñepp ni ci salam ndax ndaxte gor mënut yalwaan gor mënu ñaan yalla nak moy maye mom kesse amul keneen ku am amul keneen ko mën ko dul mom kon ñu ngi koy dëkk suñu loxo diko ñaan mu mayñu te suñu mayee buñ ci yek suñu bop bu ñu beew bu ñu rëy nañ si dimbale suñu bop dimbalé suñu njaboot dimbalé ci ku ñu tane def ci lu baax loolu moo si am solo kon tey lii daal indi loon ñu ngi yem fii di ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla dafa ñuy jàmm ak tawfeex gudd fan ak wér dafa ko suñu njaboot ñu ngi yem fi ba subaa jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu.